bokk mu yebal délégation premier ministre candidat Benno Bokk Yaakaar nga ñëw ànd ak membre gouvernement bi yëpp ñëw fekk. mais kon premier ministre ne mu jiitu ko ndax bi ñu tàmbalee wax mais Bougane premier ministre ne Bougane masa mais mi ngi lay masawu ci tur président de la république. waaye di leen masaw ci turu député yi ndax lu bëri lu fi di leen masaw ci turu lu fi nekk ñu nekkoon ci liggéey bi ñu ne muy dem mais ñoom ñëpp dañoo faru mais ñu koy masaw di ko jaare mais muy jaare waa di ko jaaree ci turu président di ko jaaree ci turu boppam premier ministre Amadou Ba moom mii di Amadou nag nee na laa ci yow mais bu ngeen xamante yàgg na mais bi ngeen xamante ci ay circonstances yu mu gis ci yow engagement gis ci yow courage ngeen jàppalante yéen ñaar te yàlla tax nee loolu it moom am ci benn rëccu ne yenn position état boo gis nga lu tàmbali ni boo ko poussé day dem boo ko poussé day dem nee mën nga ko tànne waaye nu puus mu dem nga gis sunu réussite war ngaa kontaan moom ne kon Bougane soxna Kiné mi nga doon wax nee Soolikine ne premier ministre nee na Massa nee yàlla na yàlla yërëm moom itam tuuti nee lii la daal lu métti moo tax président Macky Sall yem na fi nee ñu ñëw nag di masawu njaboot gi di jaal njaboot gi neen yàlla ci fi jógee yàlla ko yàlla xalaat. denc sa doom dara ngeen ko métti yàlla noo koy doxale mën naa bañ a man dama daa dem ba gis moom dara ñaan ne lu ñuy tëraat la doxul seen diggante yéen ñaar te moom boor bi mu féete boo ñaanee nit ki maam lu mu doxale man dañu foog ne leneen da caa dox te loolu mos see dox. ne premier ministre ne xam ci ginnaaw bi télévision bi am ak yeneen activités yi nga def moo tax bi mbir ma ne président Macky Sall naa ah, sama rakk Bougane di na waaye yow sa xarit la dem mu gën a gaawee gouvernement bi nga ànd ak ñoom ndax Bougane ko baax la kuy liggéey réew mi la dañuy ci diggante bi ginnaaw gi am nga engagement politique am say conviction politique waaye nu bokk ay valeur ndax lu ñuy teel mooy defar lu ñuy teel mooy defar kon jàpp naa ni buñ ci tolloo ñi bëgg a defar mën nañu koo waxtaan nee na loolu nag taxul ñëw tey fii waaye bu ma ko waxulee. ba muy génne saxaar yi ne dafa ñëwoon bëgg a def lii waaye wax ko làq na ci ne xam na ne yow lu mu déwénoo nga yor ca waaye yéen xam na ne nit ñi digaale moom am na loolu duñ ko duñ ko sant mukk duñ ko wax mukk moom xam na loolu mais wax ci nag premier ministre ne du ko dugal. nee ñu la daa bëri loolu moo Sénégal nee lu kilifa bu bëri xam-xam na soo ko wax lii boo bëggee xam na sa dëkk mel da xool na sa dëkk naa tàngoo mel kon ku gis lii xam yow Bougane ni nga Sénégal nee loolu war a bëgg na yem wala loolu war na waa wan Sénégal am lu ngay def waroo ko bay lu mu neex neex ak lu mu naqari naqari condition yi nga am ak valeur yi nga am kooku bokkalul du caa moom du la bàyyee ba mu fekk si ak lu ma déglu lu ca mënti yàlla dana fa nekk ne du la wax ko Cissokho waaye Cissokho moo lay defar ndax xam na ne noonu nga mel ba lépp masawu fay bi yëpp nuyu kilifa yi fi teew yëpp di leen sant di leen gërëm di leen benn masawu gis nga fi kenn ci moom Pape Malick gi ndax moom it parcelle la ne xam na ne ku ko taq la bu ñëwee ci télévision bi lu ko neex lay wax. waaye taxul nga ne dangaa mën a Pape Malick xam ne daal ca amul rek ne loolu mooy Sénégal ay défenseur pontel warul tax ñuy jël te ma bokk ci kon li fi am yàlla na fi gëj ki fi jógee yàlla na ko yàlla xalaat dina yéen nekk ñun ñëpp sax ñàkk yàlla na mu yàlla neexoon bu ñu mu nekk yàlla wutu fi te li ci njaboot gi massa ne lii rek mooy kàddu yi mu bëggoon yëkkati kàddu gi nag boo gisee mu demee nii day wax ci tur président wala wax ci tur premier ko moom waaye war a wax sama diggante ak yow ndax kii ku sori ci moom moom xam nga moom itam sori la ci bugaan moo tax bu nekkee i dara du ko gaaw a woo ndax ko boo xoolee boo waxee moom da koy jaaxal bu la nee waaw mën na ko lor bu la nee déet mën na ko miti yéen war ngaa ma am ngor gu doy ne di ko bañ a woo lu lu am xam ne dañoo war a toog waxtaane ko incha lu ñu sekk ci kanam waxtaane bu baax jërëjëf. léegi nag ñu déglu Bougane. Bougane ne premier ministre ci turu famille ne tàmbalee ci soxna Kine Diouf. nga xam ne moom mi toog mooy yaayu moom ak waali nga xam ne moom mooy kilifa njaboot gi nee dafa jóge voyage xat lool moo tax lii biñ ko waxee léegi moo tax waali teewewu ko waaye xam na premier ministre diggante ak waali xam naa fi nga teg waali nekk yi nag ne soxna moom i nattu yar nañ ko fii ko war yar ne moom ñu di borom këram moom i jaaxalu ko benn yoon ne mu féete ko fu bari kenn du ko dégg ci leen mënoon naa tiitroo a doomu coon sekk mën a tiitroo magi waali mën a tiitroo mën la soxna si bugaan waaye kenn dégg ko ci dara fépp trop seen moom mi muy dox ñaar kuy teel njëriñu bugaan ak ndamu njabootam ci loolu rek la nekk mais ñi muy liggéeyandoo ñëpp kenn ku nekk ci ñoom ci directeur bu mu doon la mooy société bu mu mën a doon ci li mu moom. ne moom it dana jëf leen teeg ñun kenn ku nekk loo xam ne nii moom bu ko yëg ne ñun ñu toog fii di fa liggéey ku ci nekk seere la lu yàqu dana ko defar ku mer mu indi ko ne dalay jox rek nag pour benn idée nga xam ki ma ñàkk moom fi mu ak fi ko féete woon ne président de la république woo ko démb ne masawu ko mu jàppit ni comprendre la ngaa bañ bokk nit ci xalaat waaye moom yàlla def na président Macky Sall moo njabootu ñëpp kon képp ku ci tool ci diggante warteefam mooy mooy masawu la ànd ak yow te lu ci doon nee nañ ko woo nee nañ ci armée bi armée mais démb kenn mënut a yegg ci armée bi ko bi ko président la bi ni woo mi ngi wàcc ci BCEAO bi dox jëm ci armée yi ne oto bi mënul yegg mu di ko wax président ni ko kii fi jóge daal yàlla day ñëw naag dogalam li tax sax ma bëgg ci insister mais damaa gis ne takk na insigne bu octobre rose octobre rose li ko tax mooy xeex cancer mais soxna si di moom yi depuis neuf ans à contre cette maladie. nee dem nañu ba yàlla def ci tawféex. ci ñetti at yu njëkk yi. waaye juróom-benn weer jàpp juróom-ñaari yu mucc yi. la récidive bi ak vitesse boo xam ne kenn xamul fu mu yem. ba sunu borom def li mu def. ma di ñaan yéen. xam-xam ci kattan bi ñu def bépp effort ba ci réew mi du ma ne dootul dee baax baax te biir na ko ni mu ngi rey ñu bari ci réew kon yóbbante boobu laa lay yóbbante dénk ku lay doon sax. nga xam na premier ministre engagement démb ci jigéen ñi kon tey jii nga ko bëgg a dëxëñ rek nga boole ko ci projet yi nga xam ni état lu mu song mën na ko daaneel kon maa ngi la koy dénk suñu diggante diggante nit la ñu am respect mutuel nit la ak nit ku effectivement 2006 wala 2007 ci la ñu xamante sur le nga suuxat ko ba ci at yu bari ku ne xam na tolluwaayu d'accord ci réew jàpp nañu yoon wi d'accord tracé bokk na ci encouragement li tax d'accord yegg ci yoon woowu la ca des nag mooy dina sant di sant ministre yi nga àndal yëpp ne kenn ku ne ci ñoom mu doy kenn ku nekk ci ñoom ku président na député yi ngeen àndoon ci ñoom kenn ku nekk ku président yooyu ñëwoon doy na waaye bu ngeen booloo yéen ñëpp nag ñëw ngir jëmmam ngir njaboot ci Thione Seck ngir defal ma ci lii dal sama kaw kon dama leen di sant bu baax a baax di ñaan suñu borom mi nga xam ne Alsaan defal ñaan mais tey mais kon nit ki ñaan. kon su baax si dafa yegsi ne Bougane ne ñu ngi lay remercier ne yéen ñaar da ngeen a bokk Serigne Touba kon ñu lay sant di sant Cheikh Alassane parce que xam naa engagement ak taxawaayam mi ngi leen sant mais tamit di kenn mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm da ngeen a bokk Serigne Touba te nga am foo ko teg Alassane Sène mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm da ngeen a bokk réew mi te am foo ko teg ñu tawal. léegi Seydou travailleur bu rëy bi mu ko defal ngir def taal ne premier ministre dog kàddoom ñun teg nañ ne rëy na lool bugaal ñu ngi lay masaw bu baax soxna Kine ñu ngi lay masaw waaye sunu xel dal na ci yéen ndax jàmbaar ngeen gëm ngeen yàlla gëm ngeen seen tubaab kon dégg nga nangu dogal yàlla ñu ñaan.